tey bés bi ñu fi dajalee mooy bés boo xamee ni doomu gox bi ku juddoo ci dëkk bi yaroo fi yàlla am ab tuuti teraangaam bu mu ko jox mu ñëw aussi nekk collaborateur du président de la république moo ñëw tey pour euh, euh, def gis-gisu Macky Sall mu traduire ko en action loolu nag ni koy traduire en action tey ci domaine éducation lañu nekk école da fay waji ubi ñu né nak nañ jëm jappalé suñu wajur yi parce que xam nga nawet bi comme comme amul euh té xalé yi won nañ teel jang parce que daaw masmi fi nekkoon dafa taxoon ñu teel a école yi bo tax na ñom programme yi ñu wonon jàng yëpp jànguñu ko et état bi nak néna na dañuy téla commencer buñu télé commencer euh novembre ba décembre dañuy def ñu rattrapage li xalé yi won jang te jànguñu ko lañ koy jàngale maintenant bu démé bo janvier ou février dañu do commencé programme bobu loolu nak comme da ngay rattraper nak donc waro perte temps et comme waruñu perte temps nak lepp lo xamé ni day nekk gàllankoor pour ñu yixa démarrer jang bi ñu nañ ko bëgg safaral saafaral tax ñu indi bagage yi tay met euh, jëbal ko euh, école yi nga xamné moy nek nekk ci commune Dya muy 16 écoles ak CMI pour buñ alxemesee incha allah rabi ñëpp mën a jublu ci njàng mi ñu am année scolaire bu apaisé wu quoi. bagage yi donc. Euh, 11 000, 12 000 ensuite 3 euh, 663 bic bleus, 3 663 bic verts, 3 663 bic rouge, euh, 4 ordinateurs portables, 2 vidéoprojecteurs, 2 écrans de projection et 300 livrets de bac. Nous euh, jamono yu ci bi te comme ñun amuñ dara lu commune bi nous suñ commune aussi des ci communes yi ñu comme nous def dans chaque école matériel bobu, mais comme école nous organiser en codec nous avons nañ moderniser codec Nous commençons commencé e, depuis d'aujourd'hui, nous avons pris année ba ay avons photocopieuse des at bi ñu def ci ordinateur ak e, imprimante aussi ñu motali indi ay ordinateur portable ay vidéo projecteur écran de projection pour que vous ñu amee cellule pédagogique nous avons def vraiment ay cellules et nous yëpp njeexndal bi ci askan wi lay nekk ci yi lay nekk ko loolu toujours ci concept bi pour éviter eh, xale yi nekk fii di gauche à droite parents yi xam nañ ci nawet bi encore amaguñ ñu donc comme livret bac dafa nekk dossier essentiel numéro un ci xale buy eh, école élémentaire di dem CM ba donc ñu commune admis à peu près 300 élèves nous ne jënd 300 livrets scolaires xajalé ko ñaari CM yu diya yi comme ñoo la ko accueilli bu diya ak bu ngooc comme ça élève bu ñëwee rek fekk fa sa livret scolaire donc inscrit mëna mën a dem sa yoon quoi